ay ca salaamaaleykum adduna Senegal Sénégal salaamaaleykum yow mi nga xamante ni si may seetaan fii ci El Vision di leen nuyu di leen siyaar di leen ñaanal jàmm saa su nekk te di ko sàkku ci yéen tey nag ñu ngi ci spécial décembre comme ni ñu ko doon defalee saa su ne tey ñu ñëw fii ah, ci Kabana Club fi ki nga xamante ni si moo di Wally 2 di ndaanaan boo xamante si ko laajte ci diwaanu jàmm gën si Kambaaw ci diwaanu Sénégal tey nag ñu ñëw fii fekk si ko fii ci Club ngeen ak doomu ndey docteur Bamba Baye Serigne Saliou Guèye Massiré Issa Dieye Fatim pendak ak Magnaay Magnaay Jéng Xalaxaan ak yaakaar naa bu ngeen gisee li fi jot am xam ngeen ne tey fii dina mel ni. Euh, la ma sambal sal ma ànd ak sama caméra euh, sama caméraman Serigne Saliou la ak waa El Vision Média kon nag Saliou nañu ñëw léegi ci kanam jàkkaarloo ak gars yi waxtaan ak ñoom ci lu baax tey nag ma taxaw ak kenn ci stafam di Ndiaga Diagne Nar bokk ci ñi nga xamante ni tey ñoom ñoo organisé lii euh, Ndiaga ginnaaw bi ma la nuyoo ba noppi lan nga ma mën a wax tey ci organisation bi. waaw Bama ñu ngi lay fay bu baax di jaar bu baax a baax a baax a baax. di nuyu tam bu baax waa Elvision gis nañ seen liggéey ñu ngi koy rafetlu bu baax a baax a baax a baax tey nag li waraloon fii suñu teewaay muy la 30 décembre bi incha allah suñu doom nday mooy fi war a nekk tey ñu gën koo xam ci Wally dë tey dañoo ñëw fii seet si suñu rakk ji Wally dë di xale bu am jom xale bu baax lool xale boo xam ne mën li muy def loolu te bëgg ko te fonk ko nee naa ko teral sa ndey bu dee joxe barke nit du la yërëm mm. ndax li ngay def bëgg nga ko mën nga ko te xam nga ko. tey suñ doom day moñ njëge wal de la doom day mu ngi ni mor deug la waaw ñu war a jël bis bi rek roof ko bu mu doofu waaw te tey rek lay mel ni daal day di yomb bilaahi xam nga ñu ñëw pour dooleel ko rek bokk ci staff bi xam nga ñëw pour dooleel ko pour fas yéene wàccee daal kabanaa yaa gën xam te ku dugg si saal bi wala nga génn si biti nga xam ne xale bi pare na waa li de pare na señ xaadim yi daal tey dina mel ni ton mm. ndax lii ma gis daal géej na am torofik fii te ñoo fi indi nga yow lu ma neex si yow li nga sañ bëgg nga jox ma étoile couture moo fi jaar rek. waa lii ku ko bëgg ku ko bëgg a tey nu muy am nu muy def. jaaral daara ja yoo xam nga daara ja na muy demee saa su ne. waa damay nuyu tamit kilifa kër gi muy El loo siree ma ndaam ndam. di nit ku baax. dëgg la am jom bëgg li muy def te gëm ko. Mm-hmm. El Vision moo fi nekk. waaw loolu dafa leer Salim Mbacke. ñu ngi rafetlu seen liggéey bu baax a baax a baax a baax ku dugg ci seen chaîne xam ne lii ay fo ñu ngi liggéey bu baax di ñaan yokkute bu baax a baax a baax ñu yàgg ko teewee ay années yu bari incha allah. macha allah fu ñu ñëw ngeen ànd ak ñun defante ak ñun yu baax waaw dëgg neexul. nee naa site yi bari na de waaye site bu mel ne Elvision. Ah. mosuma koo gis. ma ne la tey dana mel ni. tey dana mel ni. dana mel ni. xam nga li ma neex ci Elvision kàddu dafa bëri dégg te daxaar bëri seytaane guy matuk daar te Elvision ku leen yett nga toj weer lay ne waw def la ndox nga tuuru cee gis ko nii tabarkalla soirée baa ngi ala doome dëgg neexul mais ki ma jàkkaarloo doomu Sicap Mbao la mais tey ba xeeboo li nga sañse non non papa xeeboo la ñu fekk la fii ci soirée Wally lan nga ñu mën a wax ci moom tey maanaam xale la te am na talent lu góorgóorlu rek ndax gëm naa ni dem daal kenn du ko mu ngi def na lu neex sëriñ ñi fi nekk ñëpp a ngi bég ci doomu si kambaay bi wane nañ suñu bopp ndax xam nañ ñun ñooy ñan Wally na gën a góorgóorlu waaye ba tey maa ngi nii jàkkaarloog sama ndaanaan sama doomu ndey ah sama xarit Ibnou Diakhoumpa borom si kambaaw mais Ibnou bëgg naa la ma Bamba maa ngi lay fay mais tey ñu ñëw fii fekk la ci bi nga gunge sa doomu ndey Wally 2 lan nga ñu mën a wax tey waaw Wally 2 moom xam nga Sicap la dëkk te xale bu yaru la suñu nit la quoi ku mën a sonn ci nit moo tax bisam dañ ciy yow it ngay borom baax xam nga nekk sama frère et tout affaire yi na daal nice na. acca mu ngi noonu tabarkalla mu nekk Ibnou Diakhoumpa mais nag tey El Vision Médias ci kaw ca kanam mais acca nañu bëggee. mais tey lan nga ñu mën wax ci Wally 2. voilà soirée bu neex rek ñu fekk ba sonn. mais tey yaakaar naa Wally moo indi mais ba xeeboo ko defal tey. non non xeebu ma ko moom. kon acca nañu dem. acca ba tey tabarkala ñu ngi ànd ak Wally 2 fii ci bi ba tey dëgg neexul ñu ànd ak ay doomu jàmm gën doomu Sicap Mbao mais sawaay tey yaa ngi ci soirée bi di def lu la neex waaw waaw ziar nan la Wally 2 sunu rak sunu xarit moo xew la ñu déplacé wu nag ba Lamsar yaa ma gën Sicap Mbao lépp benn la sunu rak la sunu xarit la vraiment soirée bi ala dawme jeex na soirée bi dafa ala dawme mais ba tey mais yaay booy baa xeemoo li nga sañse yëngëre namm naa la maa mais lan nga ñu mën a wax tey ci neex rek waaye wàcc na def na ko daal daal beeru vampire lii laa la mën a wax. waaw mais doo ma expliqué li nga sañse tey. ah def sama rek ñëw jàppale sama doomu nag. dëgg neexul waaw. acca ba tey tabarkàlla mais ndaanaan loo ñu mën a wax tey ci soirée bi tey. mais dama kontaan parce que kii sama seex la man balaa booy ma jëloon fii ba suba damay wax parce que dama damaa bëgg man ma bëgg ko suba damaa war a joué fii. mais jaral na ma ma ñëw fii ba fajar barke Serigne Saliou yàlla na jàmm yàgg. waa mais saa sama mbër mi ci loo de. waaw Babaal maa si jàmm. waa mais lu lay ni fii tey. waaw lu may ni fii mooy soirée waalo bi rek. bilaay moo fee ne. nice mu ngi noonu mais Capo mais lu la andi tey bi. waaw soirée bi neex rek Wally Diop quoi ñëw teewal Wally ci bis bi rek affaire yi neex na ala daw mi nag quoi. saa ayca mu ngi noonu doomu banlieue xewle ba tey ñu jaxal ak waa banlieue bi lu lay indi bi. ah lu la andi tey bi. xanaa sama xarit bi lañ ko moo tax ñu ñëw fi parce nit bésam rek moo tax loolu loolu rek la ñu moo tax sa doomu ndey lañ ko tuddee mais kan mooy marraine bi yow la wala yow yaay marraine bi wala ki mooy parrain bi. man madame la madame. tabarkaala waali de jël la la bis bi nga ñëw sagal ko sigil ko loo ñu mën a wax tey ci moom. Dakar waali moo tax ma ñëw ci bis bi sama jëkkër sama xarit sama confidence di promoteur ma koy ñaanal yàlla moo xam lu bëgg ci aar bi yàlla ko yàlla defal nekk artiste bu baax. am yëg-yëg ci doomu aadama nga koy ñaanal moom tamit fu mu jublu yàlla na fa yiw yàlla jublu vraiment daal kontaan ni soirée nekk na trop. yow lu la neex mais yéen la moo tax bu sañ sañsee ngeen réew lu tax bu ngeen sañsee ngeen réewantu def lu leen neex. ah bàyyi tooñ. <laughs> mais loo ñu mën a wax tey ci soirée bi. ah soirée a été validé kontaan naa trop avec kontaan naa ayca mu ngi noonu nee na kontaan na ci soirée bi mais ba tey mais yaay booy baa xeeboo li nga sañse xeeboo ko benn yoon mais lan nga ñu mën a wax tey ci soirée Wally 2 bi waa neex na parce nekk na ni koo xamante ni ku am jàmm la ni ku bëgg nit aussi ni ku humble moo ñu fi indi ku teewee ko franchement Senhor. to be

xale bu loxoom setee mu mën a bokk ak ay mag. ndeysaan dëgg neexul xale bu loxoom setee naa na bokk ak i mag mais nag damaa jàkkaarloog sama grand sama capot mais grand bëgg naa la mais baa xeeboo li nga defal waali tey. xeebu ma li ma defal waali ndax suñu rakk la ndax rakk ju yaru la rakk ju neex a dëggal la moo tax tey ñu bàyyi lépp ñëw ngir waali quoi franchement mais soirée bi neex na jàpp ngeen ci na daal. ay mu ngi noonu décembre la ñu wax spécial bëggee tey nag. gis ngeen dem nañ fële ca ma Alizé Night Club fekk fa ki nga xamante ni si moo di tabarkalla Assane Diop tey nag ñu ñëwaat fii fekk fi ki nga xamante ni moo di Wally 2 eh eh eh waaw mais nu mu demee nii tey. naay sant bu baax baax ñoo jàppale suñu xarit suñu frère Wally 2 ñoo bokk koñ. kër bu dem soirée man maa koy dawalal man maa ngi chauffeur borom baax la. moo tax ñëw jàpp ci bés bi ànd ak sama copain nag l'homme le transitaire de tous les Adama borom baax a ngi daal tey mu ngi noonu tabaarkaala ñëwal tubarkalla Sénégal ñu ngi fii ànd ak Wally 2 fii ci Cabana ndaanaan boo xamante ni senegal xam nañu ko ndaanaan boo xamante ni àdduna xam nañu ko mu nekk Arma Ndiaye doomu Wally Seck Arma Ndiaye doomu ndey Wally Seck tey ñu fekk la fii ci Wally 2 lan nga ñu mën a wax tey ci soirée bi. waa di kontaan rek ndax ah, mën naa ne lii day gën a jëmale liggéey bi kanam ndax Wally new generation ba jug yëpp boo xoolee c'est des produits finis de yëpp. bëgg sañse bëgg way kon ñun bu ñuy ñun ñi di ànd ak waale bu ñu gisee ñoo xam dañuy roy ñu ñëw di leen dooleel di leen jàppale bi boo ko déglee waxuma sax nga ko waaye boo ko rek waale ngay gis si moom waral ñun fu leen dégg rek dañuy bàyyi lépp ñëw jàppale leen yokk leen doole buux leen yàlla dogal tey nga daje fi ak seen bu mag bi ñuy wax El Vision Média daje Touba ba ngeen def bernde yi ñu lan nga ñu wax ci El Vision waa El Vision Médias moom ca kaw ca kanam rek ndax man ba ma laa na ñii jaru ñoo ñaanal ndax ñëw nañ ba Touba sëñ waa gis na te dina defar lépp dëgg allah Sénégal lii la ñu leen indi loon ci décembre bi yaakaar naa lii bu ngeen ko gisee seen xol war na seet dem nañ fële nga ni moo di ca Assane Diop jëlal leen la nga xamante ni moom la fa jot a def tabarkàlla te it ñu nekkaat fii aussi ci Wally 2 ah mu nekk spécial décembre man docteur Guèye ba ma bàyyi Serigne Sall doon leen ko defal Guèye ma sira gis a jeey Fatou Penda ak maa ñaay ma gis a jeey sama maam borom fukki jabar ak juróom benni goro kon nag yéen a ko gisandoo eh eh oh oh